yéenekaay yi ak El Hadji Ahmed Aidara bismillah nit ku ñuul bëgg nguur tribune yéene kaay ne waa mais ñii est-ce que sérieux nañu ah est que sérieux nañu yow candidat xaat ngir 2017 ah yow ci jamono joo xam ne kon dund gaa ngi nii tar ba mel ni kon tiiraay ba mel Souleymane Ndéné Ndiaye ne man daal li ma bëgg mooy wuutu Macky Sall Abdoulaye Baldé ne man daal ci li may yëngu di sama ambition mooy nekk président ci 2017 Macky Sall tam déclaré na candidature xam leen ne candidat kon lay doon waay yéen tamit ay waay yéen tamit vous mu nekk nekk la kon dund gu seer gi moo ëlbati kon seen bopp yi waaw waaw parce que yow sénégalais ceebatuñ ceeb ceeb les sénégalais ne ri plus ri r i z maanaam ceebatuñ sénégalais ceebatuñ dara gazu fi rien ne gaz te courant bii ma ne dematul boo ca toftalee kon di gite l'école bi nga xam ne kon dikk na waaye it wàllum tabaski gi nga xam ne sénégalais fi mu nekk nii reetaanatuñu nelawatuñu kon ba yandoor jafe-jafe yooyu kon rocci na seen reetaan rocci na kon seenuk nelaw yow suñu politiciens yi daal ñoom fi mu nekk nii yeneeni bëgg-bëgg kon ñu ne safaanoo kon ak jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la sénégalais yi du dund ni le seen xel nekkul ci dara lu dul élection présidentielle bu bi nga xam ne li ci des kon bari na lii nag mooy mandargaal ne suñu politiciens yii faale kon sénégalais yi nga xam ne ci ay jafe-jafe la ñuy dund birima yemu ca ndaxte nee na moo ni sénégalais yoo jee ñoo jékki-jékki woon kon daal di yemalee lu ci tolloo fukk ak ñaar ci ay atok nguur gi nga xam ne moo fi ne kon gars yi kon ko ngir ñàkk yëg yi nga xam ne kon ñooñee yëgoon nañ ko seenuk askan arrogant tey yaakaar gu tas saay bu ñu xëyee kon muy gën yaatu parce que li nga xam ne kon moom mooy farata mel ne nii gars yi xoolal dañ koo jël konte ko fale indi daal seeni petit calcul yoo xam ni yu amul bopp amul jeen ruslu gàccelu c'est honteux waaye su dee Mamadou Diop Decroix Souleymane Ndéné ak Ablaye Baldé ak ñeneen ak ñeneen xam le nañu ne président kon lañ bëgg a doon ñooñu sax garaawul quoi mën nañ koo nangu daal mën nañ comprendre waaye Macky Sall nag moo warul woon kon jaar ca yoon woowee warul woon kon di leen topp Macky ko war dëgg mooy jéem a def kon boppam kilifa weesu daal fii waaye comme que Ahmed Junior ah. kon garaawul cay waxeet si ñoor moo ne woon ñaar fukki ministre ak juróom kese lay def de ah tey de nee na yokk le pays au quotidien ne ndaw yi nga xam ne kon ñoo bokk ci M23 ah commencé nañoo tëkku ak di dànkaaf ki nga xam ne kon mooy président ma Sall mi li xamal nañu kor Marème Faye ne ko lii nga xam ni moom nga yëkkati naan da nga yokk gouvernement bi teg ko kon ca suuf Mamadou Diop moom du ko de marté taali waaye Diop ah kay man Decroix maa ko wax ci gouvernement bii booboo nañ ko taay ah mais leen ma inondation yi nga xam ne yaram bu daw yaakaar gu tas nit ñi ci am toroxtaange goo xam ne maar day taali ay junni junni kon ci ay njaboot ci biir réew mi yëpp rawatina ci diwaanu Dakaaru gii ak ca Tuubaa gee yow da gis kon ay njabootug lumb xamatuñ kon fan la ñuy dëkk xanaa ci école ya te gis nga kon digital école ya daal dinay jot honorable député Mamadou Diop Decroix yamu ca ndaxte nee dem fi mu nekk ni le xola ba attalatuñu ko dem nañ taayi nañu ba guddi ga jeex goo xam ne kon maara day taali tàngoor a rey ay yoo xam ne xoolal demuñu dikkuñu ña nga taxaw naaxu yoo nekk ca biir di jaabaa jonge boo ca toftalee yow dund ko seer kii ma ne li ma wax rek gouvernement bii ngeen gis nii ah nekkul ne mooy saafara jafe-jafe sénégalais de li sénégalais di xaar buñ ko yaakaar ci ñii liñ yaakaar ci ñii mooy audit ya enquête yéene kaay ne yorin googe audit 2008 ja waaw xoolal ñi ndaataata lax kenn du leen laal bul ko laal bul ko jege o oh, Omar Sarr bul ko laal bul ko jege Karim Wade bul ko laal bul ko jege Ousmane Ngom bul laal bul bul ko laal bul ko jege Abdoulaye Wade bul ko laal bul ko jege cay audit ya audit ya ca wàllu njàng meeg njàngale mais réew mi quotidien nee na ah. leeral daal ñu nga xam ne danu ne ci njàng meeg njàngale mii la ñuy yëngu maanaam personnel bala ah lu ci tolloog juróomi junni ak téeméer ci ay agent personnel fictif maanaam liggéeyuñ fa amuñu la ilaha illallah ah maa la wax li lé yow nguur gi fi mu nekk nii mi ngi ci am pax moo xam ni juróom fukk ak ñeent ci ay milliards laa ilaha la le populaire ne Ibrahima Sall ministre njàng meeg njàngale mi ak jàngalekat yi ah ña ngay dóorante ay xeer yoo xam ne kon maar day taali laas ne gouvernement bi day ah dakkal na nag ñi nga xam ne dañ leen doon jël ne ay professeur vacataire aj nañu ko de le soleil yéene kaay ne juróom ñeen fukki junni ci ay candidat ñoo sëkk ca BFM ba BFM boobee l'office yéene nee na ñaareelu session ba la Ibrahima Sall daal ah di jiite l'école am kii da koo rate de daa lu ci toll ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñaar ci ay candidat ah ñoo absenté kon ca Mbàkke yéene gae jab FM ba Sud Quotidien ne njàng meeg njàngalem ren mi mbir mi daa reetaan lu sax ah waaw waaw tey ana njabootu Abdoulaye Wade ga laas ne ni ki démb day doon nañu dajekoon ca comité directeur Omar Sarr ci boppam bi ñu waxee lu jëm ci wàllum courant maanaam ñi nga xam ne kon ñooy fipp daal ci biir parti beeg yoo yée gaañ a kon ca déedéet la ñu d'accordu lit mooy Farba Senghor ma nga xam ne kon daa tardé ba nuppi dikk ne day jël kaddu gaa e xam ne dañoo bëgg di toroxal Macky Sall ba maara day taali Baara Ndiaye ci le ne la may xam le mooy sénégalais yi faluñu Idrissa Seck faluñu Ablaye Bathily faluñu Ousmane Tanor Dieng sénégalais yi Macky Sall la ñu fal te loolooy dëkk Baara Ndiaye ne xanaa xamoo leen ne nekkul ne waa yaanaamaar kese ñoo doon xeex ngir di dànkaafa ak lu ni mel politiciens yi ñun ñii tamit dañ doon xeex fu waa yaanaamaar wàccaan ci mbedd mi ña nga seen wet ñun tamit di xeex waaw waaw yéene kaay gi ne Baara Ndiaye day dem na kon ba tuumal waa yaanaamaar goo ne ay maître chanteur lañu i la ilaha illallah ah maa la ko wax direct info ne fanweer ak juróom-ñeent ci ay doon ji di ay bulet 39 bulet cocaïne yoo yee ñu teg koñ ca sali directeur général bu douane Mouhamadou Makhtar Cissé waaw gën dugal directeur général bu lamantin bis la ilaha cay sali libération yéene kaay ne sali googe am na ci ab rapport boo xam ni kon def nañ ko ci lu jëm ci wàllum trafic drogue nga na drogue bay duggee foofu ak na muy maar day taali cay sali googe Ndakaaru Njaay boobee ngir ñu am ko ndam suñ diggante Côte d'Ivoire ay cere yàpp ak meew mi mel ni kon mar d'Italie meew mu sakkan sakkan sax ñu ngi koy saraxe Ricardo Fati ci libération yéeni kaay sóoru équipe nationale ne li ñu war daal suñ diggante Côte d'Ivoire mooy attaqué rek attaqué rek bañ a ragal daal bu ñu yox yoxi attaqué rek Ibrahima Touré attaquant la dugal la ne ñun daal bu yeboo ñu dugal ay bit yu bare bare bare bari bari ak ci nu mu gën a gaawee il faut ñu dugal dugal rek dugal rek ay bit yu a teelee <laughs> alaaji mel na ni gars nag ñu ngi may commencé comprendre waa équipe nationale waaw waaw équipe bu ci dul dugal doo gagné kon nag dugal benn dugal dugalaat dugalaat yow day alaaji benn match dong lañ fi jot a football te man jot naa cee xam ne yow ndekete ab dugalkat nga nekkul